waaw batterie bi léegi tay dama lay tayle kirij gi su ko defee ma ndékk ci da nga ma ci defal mburu kilo xaaj bi defal ma ci juróomi neenu baxal def ci spaghetti deux cent beneen xaaj bi boo ko jëlee nga def ci juróomi neenu baxal moom itam mais kee da ma ci defal spaghetti cent cinquante rek tay damaa bëgg régime moo tax <laughs> ñooxi waaw ina baxra de aga aga man wari banna mane dama ñëw Sénégal pour wut xaalis yow indi na pneu mo ngi nii nga tak nga indi batterie nga ñew indi wat crédit ba bu wax na ma defal la lu lu bëgg la wa ah bagage bi yëpp mo ngi jor fi amna ñu nga xamne ñu ngi ñëw fi sax ñu ngi wax ne da nga commencer pièce détachée man la commencer ko ma pièce détachée may nga xamul mo la bëgg xamal yow man ma wara kaas waro kaas yow may nga lima la jox xam nga lu muy jaar pour no bé kep rek 200000 lay jaar batterie bé 40000 bar bé yu sew sewaan yi nga gis ni boko don pièce détachée man won woon prix nga dar sa gemi ki rek ñent junni lay jaar muy crédit crise bi ñeenti junni ñeenti ma fi commande matul deux mille amuñu problème waaw dafa nag problème léegi léegi yow gën a la indi bagage rek am na ni ma demee rek may bi ma pousse ko soppi ko pièce détachée loolu yëpp mën naa nekk ci kaw ma déggal loolu boo ma déggalee rek ndax man damay lu ne laay ay làmp ak faar ak tout laay yor waaw pour ne ray wàcc indi bagage waaw yow da ngaa naqari dara trop defaral ma may nga waaw man de dix nen laa bëggoon kon dix nen dix nen waaw omelette waaw dix ak ak miisu euh, mburu ak pompiter de téeméer. i eh, pompiter téeméer. kii bi mburu bi. waaw dañ koy def à la paquetage. à la paquetage benn bi benn benn kilo bi da ci ciy diw espaghetti euh, beneen bi nga def si nen yi après nga def ko à la paquetage door ko ci biir. yow kii salaamaaleykum. sëñ na nga def mosoo am euh, feebaru kii kii. waaye teeña non non demoon naa hôpital xool waaye wax dëgg yàlla gars ku ci te yaa ngi lekk normal da koy lekk normalement <laughs> kon ay gars yi la ñu war a doon foo dëkk yow non naa la fréquenté ñu ne gars yi gars yi quoi comme ñun ko woon ñëw parce que am na may nga yeneen yu ma xamat may balaa dégg chaque jour yaa ngi ñëw ci mayka bi wax da nga dàq koor waaw gars yi ñëpp ñu ngi dàq koor ci ci bi mu ne di ci jàkka yi sa yoon nekku ci jaay rek nga sëkk ak man jaay ma bul ma fu may dàqee toog non dama lay wax rek def naa ci bi am na dix nen bii maa ngi koy dégg c'est la première fois ma def paquetage première fois boy man dugal naa ko ñaari kilo mburu la def naa ko paquetage wax nga ko am. lii du paquetage paquetage dañ koy dugal ci bir way boy biri jappel